walam tasal yaa maa liki sukura sintu xasidati ti sukura walam tasal yaa maa liki sukura akramtani ikrama man ma safal wa kullu ma arato min kan fangal ataytani ya rabbi min ladunka سكرنا كي من فرديت وانكاب باركت لي يا ربي في الأروف وخيرها وجدت بالمهراف ملكتني بكونك الكريم ما خاد لي تفسير وتكريم أعطيتني مع القلب أنسى كل ما ملا من الدور ما تسلما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 naa bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ñaan Cheikh Ahmadou Muntaxa bu baax a baax Cheikh Sidi Mbacke mu si Abdou Lahad xalifab Cheikh Abdoulaye Lahad fan na gudd lool ak wér ba li mu bëgg a liggéeyal waajur wa mu liggéey ko ni mu ko bëgg a ànd ko ñun di ñaanal njabootu Cheikh Abdoulaye gépp ñun nag ñu daayira soppe Sëñ Abdou Lahad yu doon ziare sànq santaat sëriñ bi rek mi nga amuñu lu dul moom te it liggéeyalul kenn du moom di sant suñ mbokk taalibe yi ñu àndal liggéey bi yëpp itam muy liggéey bu am solo boo xam ne li ñu ci gën a yitteel mooy mbooloo man nekk benn topp ci ginnaaw sëriñ bi sëñ Modou léegi li ko ñun ak bëgg bëggu sëriñ bi rek mooy suñu bëgg xooluñu naaj xooluñu taw xooluñu dara waxtu wu ndigalam jute jugee ñu ko bëggee rek noonu noonu lañ koy defee di ñaan nag mu ñaan lu baax may ñu kàttan ak wér. ndax wóor na bu ñu wéree te gudd fan lañ bëgg sëriñ bi nañ ko am ndax sëriñ Sidi xam na ni ñaan rek moom xam na li mu bëgg xam na li mu bañ kon nag fayam rek lay ñaan ba gudd bala yéene liggéeyal ko lépp ñu liggéeyal ko ni ni mu ko bëggee liggéey bi nag yàgg na lool ndax yaakaar naa deux mille deux mille deux mille cinq lañ saison liggéey bi sëriñ bi du ñu dimbali ci kattanam ñu nan na bi di nam na bi di nam na bi ba tey kon nag ñu ngi naan mu li ñu dolli ñoo dolli ñoo kattanal dolli ñoo jàppale ba fi bëgg liggéey bi yëpp àgg ñu àggale fi ko comme ni ko bëggee man nag man maa jëwri nii soppe Cheikh Abdou Lahad Sidi sëñ Modou Fall sama loxo ndi joor moom mooy yor kaddu gi mooy porte parole daayira bi kon waruma ay sama kaddu ci len te moom yëkkatiwut kon dañ doon dañ doon dañ doon doxe ndigal rek kon ni ko sëñ Fallou bëggee di ko ñaal moom itam télé mbiit suñ borom yokk ko ba fu ab di àgg ci àdduna suñ borom àggale ko fa ab taalibe la nangu naa sonn sëñ Tuubaa nangu naa liggéey sëñ Tuubaa man ci loolu rek laa ko xam kon ñu ngi koy ñaanal tëlëm bi fu mu bëgg mu àgg fa Mbàkke maa nga ñaan ñaanal ko fépp mu bëgg tëlëm bi àgg fa ci àdduna Mbàkke tëlëm bi àgg fa ndax ab taalibe la ku am yërmaane lu ko bëgg sëñ Tuubaa la fépp ndajem sëñ Tuubaa moo dem mu guddi mu naaj da nga fekk sëñ Fallou Galas kon mën naa ñaanal lool lool kon nañ taxaw lu jox sëñ Modou Xal nga xam mooy kàddu gi ginnaaw buñ sant yàlla julli ci yonent bi sant Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul noo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool te ko wér waaye di ñaanal Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdou ak mboolem njabootug Serigne Abdou Lahad gi yëpp yàlla sunu borom yàggal leen fi te may leen wér waaye di ñaanal mboolem kalifa généraux yi ci Sénégal yëpp ah di wax nag ci turu daayiratu soppey Serigne Abdou Lahad waaye di jël kaddu gi ci ndigalul jëwriñ muy Serigne Sidi Ndoye mii ma feggool di jëwriñu daayira bi nga xam te ni tey kaddu yi ñuy wax ci ndigal ma lañ koy waxee nuy am mbégte lool nag ak contentement ci taxaw fii tey ci atub Serigne Abdou Lahad waaye di wax ci turu soppay Serigne Abdou laxat damay wax ni rajaahu jannatin di taati bi sunnatil maahi xaroorun yaati teraangay àdduna di ku ko bëgg dangay ngay nangoo liggéey waaye àjjanay ëllëg nag ku ko bëgg da ngay nangoo jaamu yàlla te ku xam Serigne Abdou Lahad xam ni lim boole woon mooy liggéey ak jaamu yàlla ñun nag buñ du yàlla du boolee ci ak njabootam ñun li ñuy xam lépp mooy liggéey ak jaamu yàlla ak joxe addiya tuuba li abdil muridin tuuba li abdil muridin la lahumo bi xidmatin la wax aw bi hubbin la wax aw hadiyaati la wax kon nag ñun foofu lañ nekk di doon ay donga yoo xamante ni bëgguñu lenn wutuñu lenn loolu ngërëm a sëñ Tuuba fiñ koy wute nag mooy ci pàkk bi ñu nekk pàkk bi ñu nekk ku fi nekk sëriñ Sidi Mbàkkeem sëriñ Abdou foofu la ñuy taatane sunu ngërëm foofu la ñuy taatane sunu lépp tey comme niñ ko waxee rek ci biir sunuy kàddu sunu digganteeg sëriñ bi noonu lañ koy waxee waat fii ndax a ah, ab murit nag deesu ko gis mukk di nattable naan kii murit la wala déet daf ci meloom ak jikkoom ak nam ci ngay xam ni kii kat dëgg-dëgg murit saadex mi ngi nii ñun nag foofu lañ nekk ànd kook sunu jëriñ ak sunu rakk yu ñu àndal ak tuut tànk yëpp. Euh, di doxee doxin woo xamante ni ku dem ma dem ku demul ma dem ñun loolu la ñuy doxee ñun xooluñu mbooloo mu bari xooluñu mbooloo mu néew ñun li ñuy doxee suñ pas-pas suñ diggante ak sëñ sëñ Abdou Lahad mi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyal moom lañ jël teg ko suñ kanam ah a chaque fois Serigne Sidi mi dafa may wax ne ma Modou ma ne ko Mbàkke mu ne bul xool sama jëmm boo xoolee ci sama jëmm rek di nga juum waaye xoolal jëmmi sëñ sëñ Tuubaa mi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyal saa yoo koy xool rek doo si man bi sama benn ayib te loolu it ba ma ko waxee ba léegi ma di ko def sama diggante ak moom it eh, loolu rek lan ci gis kon noo ngi sant bu baax di am mbégte lool di ñaan yàlla sunu borom bi mu may nu nu fekke waat at mii ñu teew ren ji di màggalu sëriñ Abdou laat ñu fekk ko déwén di ñaan sunu borom defal nu ak yokkute nag goo xamante ni buñ taxawaatee fii déwén ñun ñëpp dañ xam ni yokkute am na waaye di ñaanal sëriñ Fallou Galass Syll nga xamante ni mooy borom site bii kooku nag mënuñu ko bañ ñaanal ndax day jëmu joo xam te ku xam yoonu murit xam ni am na liggéey bu rëy boo xamante ni mi ngi ko ci def yaakaar naa ne kuy déglu ay waxtaanam waxuma la lii mu créé def ko muy site internet di ci liggéeyal sañ Tuuba waaye waxtaanam yi rek kenn ku ci nekk mën na cee jariñu tey mën na cee jariñu ëllëg kon sëñ Fallou noo lay sant di la ñaanal man mii yàlla dogal may jànkatu xasida it taxaw nga fu wane wane ma fa te bi mbirum sëñ Tuubaa ku yëngu dañ laa war a wane waxtu ne yaa ngi may woo site bi ñëwal ñu invité la kon sëñ fallu dan lay sant di la gërëm di la ñaanal yàq sa caméraman yi nga àndal yéen ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen ñaanal suñu borom guddal seen fan te site bi it dem ba nekk ay télé télé ci bitim réew ak ci biir ci biir réew mi noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu